Hola. chers amis téléspectateurs de la 2STV gannaaw ba nga xamee ni jóge nañ fi nga xam ni moo di Parcelles Assainies gis fa jafe-jafe yi am ci wàllu infrastructure routière gannaaw bi nga xamee ni taw bi am na fa tey ji ñu ngi ci Géejawaay su ngeen xoolee image yi sama ginnaaw ñu ngi lag bu ñu woowee lag meew tur bi nag fu mu jógee mënuñ ci xam dara lu may ñu laaj ñi nga xam ni ñoo di askan wi nekk fii waaye am na jafe-jafe bu fi am gannaaw bi nga xamee ni taw yu weesu am na fi mu di tali bi ndox effet yi mu def ba nga xam ni dafa dagg su ngeen xoolee ci image yi jafe-jafe indi na ko fi ndax kenn mënatul jaar ci corniche bi naka la waa Guédiawaye di accueillir initiative bi ñu dem ci en général nit ñi dañuy ñëw comme fii yoonu ndox la woon bi mu njëkkee nekk lu ndaw mënoon nañ ko dabu balaa muy màbb mais dabuñ ko dañ ko seetaan maire bi taxaw daal ne amul budget commune boo xam ne mën na régler lii kii état ko na a régler kon tey bi mu demee ba màgg nii tamit état seetaan ñu ne mi ngi ci taxaw di liggéey man loolu laa ci mën a wax et puis mbënd mi tamit bari na fii secteur bi waaye parce que yoon bi yoonu ndox la moom. te day màbb buñ ko gaawul defaraat nii day màbbaat nii léegi-léegi parce que dañ ko sëkk nii rek ak ay xeer ak ay suuf mais buñ ko gaawul goudron rek day màbbaat lamp yi benn bu ci tàkk nii yëpp lëndëm quartier bi waaye bu ñu lee tamit lamp yi tàkk au moins lii wóorul ko fii tali bi xar noonu foofu c'est pas ndax nu mu xaree noonu mun na dem ba ci biir gàlle yi te wóorul foofu war nañ ko gaaw defar yaa ngi dégg loolu moom moom moom moom moom gouvernement ndax instant yi Sénégal xam la moo ko yàq dañuy bàyyi ba affaire ne jot na jot ñuy soog a wax avant lii di am ndax lii c'est pas c'est pas bon quoi baaxul quoi baaxul ci géejuwaay quoi bu booy kenn liggéeyul guddi mooy loolu ak insécurité bi surtout insécurité bi bëri na insécurité bi fii wóorul ndox bi sax yenn heure yi wóorul lamp yi tàkkul nawet bi mooy loolu ndox mi ñun côté bu ñu sax amul pratiquement ndox mi du fa kii quoi mais nawet bi ndox mi ndax fii yoon yoonu ndox ndox du bàyyi yoonam fi ndox doon jaar ba léegi fa lay jaar yooyu ñoo gën a sonal parce que période bii dafay tàng et puis comme ndox mi soriwul fii donc yooyu dañuy ak dañuy pekk see ak doole daal bon sinon am ndox mi aussi ndox mi bon fii sax xaw na tane par rapport yeneen koox yi mais yenn koox yi boo ci duggee ndox mi day am problème pour mu évacuer wu bu ko defee nag par exemple koñ bi ci ginnaaw fii ndox mi bari bari mooy nekk foofu presque toute la saison du mën a deñ banlieue bi am ñu yàlla suturaal mais bëri na tamit ay néew doole ñu dimbali leen tamit jàpp ci te yàlla tax waaw loolu affaire bu rafet la affaire boobu affaire bu nice la lu tax ndax affaire bi xam nga maanaam nit nga woor ba ngoon jot amoo loo ndogoo ñëw indil la li nga loolu affaire bu rafet la maa ngi ñaan yàlla ah, ñu yokk ko liñ ci doon def benn nañ ci yi fukk affaire bu rafet la franchement kon Sénégal ñëpp kontaan nañ. parce que Sénégal aussi dafa nekk réew moo xamante ne amul doole nit ñi fi nekk aussi doole donc yu initiative yu mel noonu dana dimbali nit ñi daal parce que bon léeg-léeg nit di woor de ngoor am na ñoo xam ne amuñu lu ñuy ndogoo c'est vrai que am na ñoo xam ne tànn nañ tuuti mais lu cëpp doole du ñu am lu ñuy ndogoo donc initiative yu mel noonu lu ñuy saluer la ko di ko remercier di ñaan yàlla mu gën yaatu daal. bàyyi faale waaw parce que Baay Faal la parce que àdduna noonu la lépp union la waaw parce que union boobu lañ ci soxla waaw Baay Faal na daal parce que ñun lépp lu am Baay Faal rek ñuy neex. suñu moo koy télépathie bii moo koy toj marmite bii la